faatihatul kitaab dana noppi ab noppi win bu bu ndaw ma ne ko maa ngi lay laaj yow yonentab yàlla bi maa ngi lay laaj ngir yàlla maa ngi lay laaj yow yonentab yàlla bi sëgg noppi gii ngay noppi ci diggante kabaru xarmal ak njàng mi looy wax mu ne ko danaay wax ni allahumma baid bayni wa bayna xataayaaya kama baadta bayna almasriqi walmaghribi allahumma naqini min alxataaya kama yunaqa althawbu alabyadu min adanati allahumma aqsil xataayaaya bilmaai wa salbi walbardi rawahu alxamsatu ila tirmidiya damay wax ne yow yàlla na nga soril na nga ma soril ay ñaaw ñaaw na nga ma soril sama diggante samay ñaaw ñaaw mooy lay mën a jëf ci man yu ñaaw nanga ma ko soril ba nga xam ne du ma mën a def yu ñaaw wala yu ñaaw du ma takk na nga ko soril na nga ma soril yu ñaaw yi ni nga sorilee diggante penku ak sow sorilee ma ko lépp lu ñaaw yow yàlla na nga ma tetal ci lépp luy njuumte luy lu bon ni ki mbub mu weex mbub mu weex waaw ni muy setee ci tilim nga xam ne bu setee dëgg dëgg set dara du ci takk da ngay gis rek weexaay yu mbubb ma ne dor noonu laa la ñaanee nga setalee ma ko ci lépp luy tilim yow yàlla na nga raxas sama yu ñaaw ci ndox mu glacé mu sedd loolu laa din wax mooy nag ma setal rek ci lépp luy njuumte ci lépp luy lu ñaaw ba nga xam ne du ma mën a def sax lu ñaaw wala lu ñaaw yu bonam duma tax fenn loolu xadis la boo xam ne juróom yi soloon na ko ndara cirmi bii juróom yi moo doon yan Buxaari yi alaa jëmale taal muslim Abu Daawud Abu Daawud Tirmisi ak Nisaay yi jàpp leen njàng moom jàpp rekk la jëlee nañ ba tey ci ibnu Omar radiyallahu anhuma mu ne nekkoon nañ di julli ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn waaye ci nit ñi ci saxaaba yi ne allahu akbar kabiran walhamdulillahi kasiran wa subhanallahi bukratan wa asilan lii la waxoon ci baat yonente sallallahu alayhi wa sallam ne waaw kan moo doon wax ba baat yooyu kan moo doon wax baat yooyu benn waay ci mbooloo mi ne ko man la yow yonent bi yàlla bi mu ne dama yéemu lool ci yooyu baat ndax bi nga ko waxee rek lañ ubbi bunti asamaan yi ma ne Barham Diop ba ñu doon woo ñoo ngi woon ci njàngale nee naa leen jàngalekat bu mag bi la moo ñu woo nee naa ko ñoo ngi toog ci njàng mi nga ñu woowee bi may parek moom nee naa ko yan baat nga ñuy yóbbante boo gi boolee ci suñu njàngale mi ne yaa ko joxe muy def sa dàpp mu ne xanaa léeg-léeg rek muy rëcc di ñëw rek kon dig na leen ne daal dina gën di jéem di ñëw lu gën a bari na mu ko daan defee teg na ci nag ñaan yoo xam ne ñun ñëpp nañu wax amin mbir yi dina nekk fu ñu tolloo mu ne bi saxaaba bi waxee moom ibnu omar baat yooyu di allahu akbaru kabiran walhamdulillahi kasiran wa subhanallahi bukratan wa asilan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na waaw kan moo wax yooyu baat benn waay ci gaay yi ne man la yow yonent bi yàlla bi yonent bi nag waaw man dama yéemu ci baat yi ndax bunti asamaan yëpp dañoo ubbeeku li nga waxee baat yi mooy yërmande yàlla yëpp buntam ubbeeku na jànni ndax itam jëf ju baax wax ko moom moom jëf ju baax nga jëf ko dañuy tolloo wante daraja te yàlla xam ne ne lu baax loolu lu mu doon rek day yëkkati ku jëm ci moom ilayhi yas'adul kalimu tayyibu alxuraan moo ñu ko jàngal lu baax lu mu mën a doon ci ay wax yàlla da koy gërëm day yéeg jëm ci yàlla ci koweeg yàlla gi bu ñu waxee nag yéeg nag jamono bu nekk dégg yeneen ci rek ne bu leen gëm alhamdulilah sax seenu maqaama tollootul ci gëm waaye xam la dund la bu ñu nee yéeg jëm ci yàlla xam ngeen ne du yéegu dem asamaan waaye moo yéegu yéeg rek dem ci koweeg yàlla gi comme baat yu baax yëpp jëf yu baax yëpp day yéeg jëm ci koweeg yàlla gi kon nag aliyin radiallahu anhu nee na ibnu omar nee na ba ma déggee yonentu wax baat yooyu laa taxoog nag baat yi bàyyeetuma ko nag bàyyeetuma ko nag mukk nag di wax baat yooyu rek mooy fu ñu baat yooyu xam ngeen baat mënu ko gën a rek allahu akbar yàlla rek ka màgg yàllaay ku màgg ki amul sax kum gën a màgganteel ba ngay firee afala tafdil bi ne yàlla gën a màgg waaye yàllaay ku màgg ki nga baamtuwaat ko tekkee ne kabiran allahu akbar kabiran yàlla ku màgg ki màgg bu màgg walhamdulillahi kasiran mooyoo ak cant sant naa ko cant gu bari lool wa subhanallahi maa ngi tudd màggaayam ak sell ku mbiram bu ko ratal ci suba gum mën a doon wa asilan ak ngoon yi lii mooy baat yooyu mu ne bàyyeetuma ko nag kon nag dégg ngeen ko ñu jëlee ci aliyin radiallahu anhu mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu taxawaan jëm ci julli ba kabar kabaroog xarmal daan na waxit baat yi wajahtu wajhiya lilladi fatara alsamawati wal arda xanifan musliman wa ma ana min almushrikina inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamina la sharika lahu wa bidalika umirtu wa ana min almuslimina allahumma anta almaliku la ilaha illa anta أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عن لا يصرف سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك وأنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك lii ay baat la yoo xam ne Seydina Aliyu nee na yonent daan na ko wax bu kabaraan balaa muy jàng rawaahu alxamsatu ilal buxaariya ay baata ngoogu yu rëy yu màgg yoo xam ne ku ko mënoon da nga koy teewlu ci sa xol foo toll yaa ngi koy wax ak sa làmmiñu xol wax ak làmmiñ nag bii ñu xam gannaaw kabar yii yëpp ci ay baat xëy na du yomb ci ñëpp waaye ku ko waxul itam ci làmmiñ fexeel ba wax ko ci sa xol loo war a wax ak xol nag teewlul maanaa ma lu baat yi tekki mooy ni te yàlla rek xam na wajahtu wajhiya lillazi jubale naa sama jëmm lépp ci ki nga xam ne fatara samawaati wal arda mooy ci fent asamaan ak suuf xaniifan musliman may ko dellu ci sama borom dellu woon dellu bu ma sëkk di jullit boo xam ne sama jullit bu wér la ngeen seet nag baat yooyu ki nga xam ne fent na daal ci àddina bi loo xam ne ñëpp yi tëwoo nañ ko rek dara ji juré jëm koy jox ci nit ñi kii moo fent nangam kii moo amal nangam kii moo def dara te ya ñuy def dañuy roy ci lu am ba pare sukkandiku ca ci xel mën ko taxawal bu ñu cay gis muy màgg ca bëtu nit ñi ci xolu nit ñi seet leen nag asamaan si ku ko taxawal ngay xalaat kan la aj ca biddiw ya ak weer ya dara daanewu ko def suuf si moom itam ci anam bu mel noonu nga wax ne kon nag jëmale naa sama jëmm lépp mooy jox naa sama bopp sama jaamu lépp yeele naa ko ki nga xam ne mooy ki amal asamaan yi ak suuf yi seet leen jooju wax ni mu màggee kon kenn ku taxaw di julli teewlu lii ci sa xol boo ko waxul salaam yi tam boo ko mënoon sax lu dul jullit noonu nga koy defee ci sa xol nga teg ci ne wa ma ana min al musrikina man de duma kuy bokkaale borom bi cig lekkam cig yàlla yàllaam gi xam naa ne borom bi rek yeeyok lekkam ci borom duma ko bokkaale inna salaat yi naka samay julli wannutu kii ak mboolem samay jaamu yàlla wa maxyaaya ak lépp luy sama dund wa mamaati ak sama dee lépp lillahi yàlla rek la nekkal rabbil alamina moom yàlla mi nga xam ne moom mooy borom bi defi moom rek la nekkal laa sharika lahu amul kenn kuñ koy bokkaaleel ci nekkam gi ci yàlla moom rek a yàlla wa bi dalika te ci loolu kat umirtu lañ ma digal ne naa sax di ko def yonent bi ma wax loolu loolu lañ ma dig sant ma ne naa ko def ci sama borom loolu la ma wax wa ana man kat minal muslimina bokk naa ci jullit ñi bi anna minal muslimina yéegal sa bopp ci jullit ñi kon darajee jullit ñi day yaatoo ci yow wala boog mbaaxu jullit ñi ba tey ma ne yàlla boole la ca kenn ku nekk lam baax la ceeg islam yàlla joxal la ca mbaax ga ndax da ngaa yéegal sa bopp ci jullit ñi nga tekki ne allahuma yow yàlla anta almaliku yaay buur laa ilaha illa anta kenn du yàlla ku dul yow yàlla mii yàlla anta yow de rabbi yaay suma borom wa anna man abduka may sab jaam zalamtu nafsi tooñ naa suma bopp wa taraftu bi zanbi te nag nangu naa ne am naa bakkaar yu bare bare bari kon faxfir li na nga ma jéggal sunoo bi samay bakkaar jëmmi an lépp jéggal ma ko ndax kat laa yaxfiru zunuba illa anta kenn du bale bakkaar ku dul yow wax di nii na nga ma jubal li ahsanil axlaaqi ma mel melokaan bi gën a rafet ci jikko yu baax yi jubale ma ci jikko yu baax yi ma jikkowoo ko laa yahdi li ahsaniha illa anta kenn du jubale ci jikko yu baax yi nag ku dul yow wasrif anni sayyi'aha soril ma yu bon yi jikko yu bon yëpp soril ma leen bu ma leen jege buñ ma jege ndax laa yasrifu sayyi'aha illa anta kenn mënul soril nit jikko yu bon yi lu dul yow kon la bayka wuyu naa la ci sa woote gi nga ñu woone nekk sa jaam wuyu naa la ci wuyu gu matale lool wastaadayka ba tey itam nangu naa wuyu naa sa ndigal maa ngi ñaan lu ma dimbandekoo ba mën a takkoo ak di wuyu sa ndigal nekk sa jaam wal xayru lépp luy jàmm kulluhu léppam nag fii dayka ci sa loxo rek la nekk yow yàlla sa ñaari loxo rek la nekk wa sharru lépp luy ay laysa ilayka amul dara lu ci jëm ci yow ay moom dara dara dara jëmul ci yow yow jàmm rek nga am ndax amul benn jëf ju bon lu ñu war a mën a askane yàlla déedéet lu kon kay ci jàmm bi la jógee wa ma asabaka min sayyiatin fa min nafsika la ñu alquran jàngal lu bon fu mu jógee ñëwal jàmm bi ci jàmm bi la jógee lu baax nag moo jógee ci yàlla kon nga wax ko ne ko ay moom dara jegewu la ci wa anna bika wa ilayka man kat ci yow laa wa ilayka te ci yow rek laa jëm wax ju màgg nga man ci yow laa ndax bi ci arab wa anna man bika ci yow laa nekkee bika ci yow laay waxee ci laay jëfee ci laay léppee wa ilayka te ci yow laa delluwaat jëm itam wax ju màgg ngoogu joo xam ne aarif billahi de war naa mën a xam yooyu baat lan la tabaarakta yow yàlla sell nga wa taalayta te yow yàlla kowe nga walis lépp lu ñaaw lu bon ñu koy jëmale ci yow astaghfiruka maa ngi lay balu wa atubu ilayka te maa ngi tuubaat delluwaat ci yow yi ay baat la yoo xam ne juróom yëpp solo nañ ko lu dul Buxaari yi ne yonente sallallahu alayhi wa sallam bu kabaraan balaa muy jàng faatihatu kitaab dina ko wax kon ñun suñu ngir li xamuñ ko ci muy ngiral imam Malik waaye ma ne bu mu tee itam di leen teewlu wax yu nu mel di ngeen di yégee nag maqaama ba maarif billahi lu mu ko wee daraja xam nga yi ay baat la nit mën na ko wax ci làmmeñam mu yem ca làmmeñ wax xol ba waxu ko te la ëpp solo ci waxin mooy wax ji nga xam ne xol baa ngi koy yëg mu ngi koy dund maarifatu billaahi nag bi xam yàlla mooy dunduloo jàmm bi ni yàlla nekkee ci yàllaam gi nga jox ko mbooleem màggaay boo xam ne boo waxulee baat ya sax teewul xol baa ngay dund màggaay yàlla ci yàllaam gi loolu mooy lii xam le ne maarifatu billaahi dëgg-dëgg mooy maqaam bi gën a rëy ci maqaama yi ndax lépp lu nit di wax ci ay baat di ko taggee yàlla yow sa xol fu mu toll mu ngi koy taggee yàlla donte salaam lañ waxu ko seet leen yii baat ku xam yàlla ci yéen di dund xam-xamam ci yàlla ndax tàqoo tàqale koo na benn waxtu ci jamonoom di wax lii ak boromam loo gis rek moom la kenn nekk fi yaay borom doole sama lépp dellu na ci yow ci yow la jógee ci yow la tax lu ñuy dund lu lii kon maarifatu billaahi rek ma ne mooy jaamu yàlla bu kawe gi li ñëpp di wax boo ko waxee waxi ko ni ñëpp boo ko waxul yow sa xolam koy wax te waxu xol moo gën a ci ëpp daraja waxu làmmiñ ci làmmiñ rek kon nag nañu dund bu baax xam yàlla te xoog baat yu baax yu sell yi ñu koy wax jëmale ko ci yàlla buñ ko mënee ci làmmiñ làmmiñ la buñ ko mënul ci làmmiñ itam nañu taxoo ak xol di ko dund kon de fu ñu toll ñoo nga bokk ci jaam yëpp gën a gërëm loo yàlla seen wax ak seen jëf ataawudu billahi min asheytaani kon nag teewlu ngeen ne wax nañ baat yooyu ñu ni yonente sallallahu alayhi wa sallam daan na ko wax waaye nag xam leen ne yonent daan na wax lu ëpp loolu ca wax ya nga xam ne moom laa leen wax ne di leen ko teewlu ci seen xol lu waaye mën a teewlu ci màggaayug yàlla ci xam goo xam yàlla di ko dund xam nga ne yonent léppam wax la léppam jëf la kon lu ñu wax ne daan na ko wax fii baat lu màgg màgg yonent daan na wax lu ko raw bu leen wax ne bari na bu leen wax ne tuuti na yonent léppam day wax ak boromam léppam dellu na ci borom bi kon nag ñu nit nañu fexe sunu lépp julli la mbaa du julli dañu taxoo ak sunu xol bi dund nekk yàlla ci yàllam gi kon loolu ay baat la taawudu billahi min asheytaani muslu yàlla ci seytaane ba tey itam bunta ngi da ciy wax qaala allahu taala fa ida qara'ta alqur'ana fastaiz billahi min asheytaani rajimi bunt bi ñu ngi ko ubbee ci ayat alquran yàlla wax ne booy jàng alquran na nga muslu ci seytaane mi nga xam ne muñ jàmmi la seytaane muñ jàmmi rajim mooy raj mu ku ñu sànni ku ñuy jam jam seytaane nag mooy boo tuddee turam rek ne audu billahi min seytaani rajim wala nga ne iblis njiital seytaane yi ne laanatullahi alayhi yal na ko yàlla rëbb loolu mooy li ñuy jamee seytaane gis nga rahim ak rajim rahim mooy ki yërëmit yàlla rajim mooy ku ñu jam ku ñu sànni ki di seytaane yàlla nag moo santaane ne bu ñu jàng alquran nañu wax audu billahi min seytaani rajim buñ ko defee rek seytaane sori nañu def nañ santaane bi yàlla kon ca moom an abi saidin radiallahu anhu mu ne yonente sallallahu alayhi wa sallam bu taxawaan jëm ci julli ci guddi dafa daan kabar wax ne subhanaka allahuma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa taala jadduka wala ilaha gayruka teg ci waxaat nagit ne allahu akbaru kabiran teg ci waxit ne audu billahi sami al alimi min asheytani rajimi min hamzati min hamzihi wa nafsihi wa nafxihi lii ay baat la yoo xam ne mu ne yonente sallallahu alayhi wa sallam bu daan taxawal ay naafale yu mu daan def ci guddi daan na wax baat yi te loolu ashaabu sunna soloo nañu ko Usmaan ibni Abi Aas radiyallahu anhu moom itam ñëw na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow yonent bi yàlla bi man daal bu ma taxawee di julli rek seytaane day dox sama digganteeg sama julli bu ma bëggee jàng rek mu ñëw di ma jax-jaxal sama biir njàng yonent sallallahu alayhi wa sallam ne ko boobu boobu seytaane di def loolu mu ngi tudd xanzabun seytaane boobu noonu la tudd xam nga am na seytaane bu njàngoon it boo xam ne bu nit di jàpp moo ko yàqal njàpp la bu nit bëggee làpp moo ko yàqal làpp ga xam nga jàngoon ngeen ko mu tuddoon walxaan bii seytaane moom di yàqal kuy julli mu ngi tudd kan zëgun mu ne yonent ne ko bu fekkee ne yëgati nga ko rek na nga muslu ci seytaane ci moom na nga muslu yàlla ci moom te na nga tëfli ci sa wàllu càmmoñ ñetti yoon tëf tëf tëf ci sa wàllu càmmoñ du nag tafli boo xam ne day ànd ak lu bari melal ni kuy tafli rek ndigalu yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam def ko ñetti yoon ci sa càmmoñ ni ki mu ko waxee itam ca buntab gént ne ku ci gént ci yéen lu ko neexul gént gu bon na mus bi seytaane tafli ci wàllu càmmoñam ñetti yoon loola day dàq seytaane day dàq ñaaw gént ga itam mu ne ba ko yonent waxee nag ma dal di ko def yàlla soril seytaane ba it ci man booba laa ko gëj a gis booba la sori ci man kon nag itam képp ku seytaane jax-jaxal ndigalub yonentam boobu sallallahu alayhi wa sallam boo ko defee rek na dem ngeen xam ne nag kuy julli bu taflee te tafli bu ànd ak baat dañu wax ne comme wax la ñoo dugal ci julli te kuy julli warul def lu dul jàngum alxuraanam kon tafli ba ànd ak baat yu génnee ci sa làmmiñ nga xam ne ku doon bind sax mën ngaa bind na nga ko taflee waxuñ ko kon tafliin bu woyof la mel ni da ngay ëppaale rek sa gémmiñ jéem ci génne waale lu mel ni ngelaw lu ànd ak ay peppi ndox loola boo ko defee rek doy na ca muslu ba ngay muslu seytaane a taaminu aqibal fatihati wax amin gannaaw fatiha moom it bunt la ci bunti julli ngeen gis ne kon julli li ci aju bari na lool wax amin ci gannaaw fatiha jëlee nañ ci abi hurayrata radiallahu anhu mu jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent wax ne waxtu wu imaam waxee amin na ngeen wax amin ndax kat ku mën a doon ci yéen bu waxee amin aminam ci taseeg aminu malaaka yi yàlla baal na ko lépp lu jiitu woon ci ay bàkkaar yu mos a am kon gis ngeen wax amin gannaaw imaam baax na lool ndax malaaka yee dañ koy wax ku sa wax tombeeg waxi malaaka yee rek jéggal nañ la say bàkkaar yi jiitu woon lépp te loolu xaddis la boo xam ne juróom yépp solo nañ ko gis ngeen ñu bari nag duñu ko def waaye la wax mooy def ko te xaddis baa ngi jàng ngeen ko kon jàng xam jëfe jëlee nañ ci riwaaya ba tey bu imaam waxee gayril maxdubi alayhim wala dalin fa quuloo na ngeen wax amin yonent a ko wax ida qaala al imaamu gayril maxdubi alayhim wala dalina fa quuloo amin fa innahu naka li am dëgg mooy man waafaqa qawluhu qawla almalaikati gufira lahu ma taqaddama min danbihi ku aminam taseeg aminu malaaka yi rek baal nañ ko la jiitu woon ci ay bakkaaram kon bu ngeen waxeetee amin am ñuy wax naan lu tax ñuy wax amin ci gannaaw imam baat yi ritandoor hadis baa ngi buxaari yi ak nisaa yi wax nañ ñoom ne bu fekkee ne kenn ci yéen wax na amin malaaka yi dañuy wax ci kaw asamaan amin kon kenn koo ci xam ne ci malaaka yi aminam tasee naag sa amin jéggal nañ la la jiitu woon ci say bakkaar yëpp benn waxin la rek ci baat bi wutee ba tey jëlee nañ ci moom kan abu hurayrata jëlee nañ ci moom ba tey mu wax ni yonent sallallahu alayhi wa sallam bu daan jàng ba yegg ci gayril maxdubi alayhim wala dalin da daan waxal moom boppam amin ba ki nekk ci wetam day dégg ki nekk ci wetam ci sàppe su njëkk si day dégg aminam di moom yonent kon da daan wax amin ca kaw loolu rek ngeen ciy déggee kon nag loo ci déggee yow it di wax amin ca kaw loolu mooy jàngale yonent sallallahu alayhi wa sallam loolu Abu Daawud solo na ko Tirmisi yu Xaakim wéral na ko Abu Daawud Tirmisi yu Xaakim ñaari noppi yi nag nag yoo xam ne it yéen da ko daan noppi ci julli fattataani ñaari noppi jëlee nañ ci ku ñuy wax samurata radiyallahu anhu mu ne ñaari noppi de nemmeeku woon naa ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ko daan noppi ñaari noppi ñaari noppi yooyu nag fa ankara dalika imran ibnu xusaynin wa qaala habitna saktatan am ku wax ku ñuy wax imran mu ne man li ma xamoon ci yonent mooy benn noppi ñu daal di bind ci mu jëm ci ibnu kaabin ubay ibni kaabin te Madinatu Munawwara ubay dal di tontu ne sumrataw li nga xam ne moom la sumratu wax moom loolu la xam moom itam lu sumratu wax mooy ñaari noppi kon moom it dëggal na wax ne moom it li sumratu wax ñaari noppi yooyu loolu la xam ci yonent sallallahu alayhi wasallam mu ko daan def saadu wax ne ñu wax xataadata ne ko ñaari noppi yooyu yan la woon mu ne bu daan jàng ci jullim ba jeexal njàng ma daan na noppi jeexal njàng ma fan ndax mooy bu amee fatihatul kitab lay noppi ab diir wala boog bu jeexalee fatiha taaroom ca teg lay noppi ab ndiir dogaru ko daan na noppi daal ñaari noppi benn ba mooy gannaaw bu mu jeexalee njàngam dal di waxaat ne bu jàngee wala daal yi ba tey itam bu duggee ci julli gi bees dana noppi te mooy bu waxee allahu akbar takbiratul ihram noppi googa muy noppi wax nañ ca gannaaw loo xam ne da ko daan jàng doog a jàng fatihaam kon bu jeexalaan fatihaam itam dana noppi muy ñaari noppi yooyu rawahu tirmisi yu wa abu dawuda kon xam nga gannaawu jeexalu njàng mu mu doon jëfa ca topp balaa ngay jëf jëf ja nag noppi ab diir ñaari noppi yooyu la wax ne la daan jëlee ci yonent bu kabaree kabaruk xarmaal ak bu jeexalee fatihatul kitab wala boog nga ne bu jàngee ba jeexal jàngam balaa muy rukkoo du ko jeexal rek baatub jeexal baak allahu akbar di taqaloo déedéet dana taxaw ak ndiir dogoog allahu akbar rukkoo jàngawu saar nag gannaaw fatihatul kitab lii moom xam nga lu ñu xam la yàlla def na alhamdulillah ñun ci sunu réew mii ci jàngul julli sax xam na lu ñuy jullee ndax ñëppay julli te barab bu nekk la ñuy jullee te borom xam-xam yi bari na te ñiy julli buñ jàngul ci téere yi itam yàgg nañoo roy ci borom xam-xam ba nga xam ne yu ci bari moom alhamdulillah xam nañ ko xale yaa ngi koo ci laaj tusubaar ñaar ñaata rakkalaak ca kaw laak ci suuf dala koy wax te jàngagul ko fenn yàgg fekkee ay kilifaam di julli rek la sant yàlla la nag ci géej googu xiwal ndax bari na réew yoo dem doo fekk mukk mag ña fonkee julli ñun waa Sénégal ni ñu ko fonkee rawatina nga dox ci mbedd mi gis ñuy julli bari na réew yoo dem sax ci réewu arab yi nga xam ne bu dee buñ waxee ne alxuraan waxu arab la ñoom arab lañu mën nañu wax ne xanaa ñooñu war a gën a mën a xam waxi alxuraan ak njàngaleem yonent néew na boo gisee ci ñoom ñuy julli ci mbedd lu tax nag mooy ñun nit ñuy téelee ba ku nekk fa la waxtu fekk rek nga jullee ko fa def leen ñuy téelu leen noonu kon tax na itam ñun xam nañ ci mbirum julli loo xam ne ku dundul ci ñun mun na ko bañ a xamee ñun niñ ko xamee fatiha bu jeexee war nga caa teg saar ci ñaari rakk yu njëkk ñaari rakk yu mujj du ko am loola ma ne daanaka ñëpp xam nañ ko ci suñu réew mi donte jànguñ ko alhamdulilah ci xéwal boobu kon bunt bi ci loolu lay jàngale jëlee nañ ci abi hurayrata mu jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent wax ne ndax kenn ci yéen ku mu doon bëggul ñëw ci këram fekk fa ñetti gëléem yoo xam ne benn bu ci nekk nga ko biiral doom benn bu nekk nga ko ëmbal kenn ci yéen ku mu mën a doon ndax bëggul ñëw ci këram fekk fa ñaari ñetti gëlëm yoo xam ne gëlëm ku nekk mu ngi ko biiral doom ñu ne ko ah kay loolu kay ñun ñëpp ko bëgg ndax ele gëlëm am am bu neex arab la am am bu mag la ci ñoom ndax it ku xamoon lan moo doon gëlëm te yooyu jamono di nga xam ne am am bu mag la léegi kay la am am yi soppeeku ñuy gis ne leneen ak leneen ay am am yi waaye ci yooyu jamono buñ bëggee wax am am dëgg ñu ngi koy misaale ci ku am gëlëm rawatina gëlëm bu ko ëmbal doom yonent wax loola ñu ne ko ah kay ñun ñëpp a bëgg a ñëw kay suñu kër fekk gëlëm ñetti gëlëm yi ñu ëmbal doom mu ne kon nag ñetti aaya yoo xam ne da ngeen koy jàng gannaawu fatiha moo gën ci yéen ngeen am ñetti gëlëm yu leen ëmbal doom yooyu maanaam boo jàngee fatiha ba mu jeex ñetti aaya yoo ca war a teg donte ñetti aaya la wala aw saar la nga ne lii ca nekk daal lay xam ne ne bari na bari goo xam ne bu ngeen ngéejoo am gëlëm yooyu itam teg ñetti aaya yooyu ci fatiha ko moo gën a muslim solo ko ñu jëlee ci abi qataadata radiallahu anhu mu ne yonent sallallahu alayhi wa sallam daan na jàng ci ñaari rakka yu njëkk yi ci jullit tusubaar fatihatul kitab ak ñaari saar mooy rakka bu njëkk bi fatiha ak saar nga rakka ab ñaareel fatiha ak saar muy ñaari saar yi waaye ba tey itam ku jàngoon benn fatiha teg ci ñaari saar it baax na ñetti saar it baax na benn aaya ñaari aaya bu fukki aaya itam baax na liñ bëgg daal mooy teg ci saar te wax jooju nit mën na caa déggee ne kenn warul gàttañlu ne damay mokkal fatiha rek mu doy déedéet fexeel ba teg ci ab aaya ñaari aaya mbaa ñetti aaya wala aw saar boobu sax loolu la yonent daan def sallallahu alayhi wa sallam léeg-léegaa nit mu guddal ko saar wu njëkk wi ci gannaaw fatiha da daan gën a gudd saar wu ñaareel ci rakkaab ñaareel gannaaw fatiha buy jullee julli suba day guddal njàng ma njàngum rakkaab julli suba bu njëkk mu war a gën a gudd rakkaab ñaareel te loolu xam te solo na ko lu dul termite yi ba tey jëlee nañ ci ñu wax ku ñuy wax xibaar ne ko lan ngeen xam ci njàngu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ko daan jàng ci jullit tisbaar ak jullit tàkkusaan nu ngeen mën a xamee lu yonent daan jàng ci tisbaar ak tàkkusaan mu ne dañ daan xamee la yonent daan jàng mooy dañ daan gis sikkiñam bi yëngatu bu sikkiñam bi yëngatu rek lañ daan xam ne daal mu ngay jàng kon jullit tisbaar jullit tàkkusaan ba tey yonent dëgg la jullit yi yellu la waaye léeg-léegaan mu daan jàng ba mu yàgg mu yëkk ci baatam ba nga mën a xam ne saar wii la jàng mbaa saar wee la jàng waxul ne da ngay yellu rek yellu boo xam ne kenn du dégg sa baat noonu la yellu yellu la li ngay wax yow na nga ko dégg sa bopp waaye daan na jàng ba mu yàgg mu yëkkati baatam ba ñu dend ak moom xam ban saar lay jàng bismillahi rahmani rahim alhamdulilah rabbil dellu siwaat yëkkati daal ba mu jog ñëpp xam ne yaa ngay jàng saa sàngam nga delluwaat suufal sa baat aayul teewul ñu ne yow da nga doon yellu kon ku ci yellu ci itam lu mel noona boo ko defee aayul boo gisee ku ko defit bu leen wax ne aay na na ko sujjootal ndax da doon war a yellu biral na déedéet du biral ndax roy sunna si yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam lan la yonent daan jàng nag ci jullit tàkkusaan ak jullit tisbaar jullit tisbaar ak tàkkusaan lan la daan jàng lii lépp nag xam ko la muy tekki rek mooy yonent yi bàyyi luñ dara yonent bi saaba yi bàyyi luñ dara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jëf ko mbaa mu wax ko lu dul jël nañ ko denc nañ ko jëfee nañ ko te nag kat loola moo ñu may ñun ñu mën a wax ne ñoo ngi roy yonent bi mën a yàgg nañoo gis yàgg nañoo dégg ba mel ne ni xam nañu lépp waaye ñoo ngi xamee rek ci ñi daan jël lépp ci yonent bi kon loolu bunt la ci lu yonent daan jàng nag jullit tisbaar jullit tàkkusaan saar yi bari na bu la neexee mun ngaa tënk rek waxaat ne loo jàng baax na yonent bu jàngaan saar wii ba ñëpp xam ne saar wii la itam aayul yow nga jàng beneen saar jëlee nañ ci jaabir mu jëlee ci ja jëlee nañ ci jaabir doomi sumrata ma jàngoo léegi hadisam mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na jàng ci jullit tisbaar ak jullit tàkkusaan suuratu taarixi wa samaa'i wa taarixi ak wa samaa'i zaati buruuj ak lu nuroog ñoom ci ay taar loo ci déggee nag ñoom ñaar kem seen guddaayu njàngin boo tànnee taar wu nu mel wala ay aay yu nu tollool itam boo ko defee rek baax na kon jullit tisbaar njàngin ba da ngay tànn taar yu gudd lool wala yu gàtt tàkkusaan yu gudd lool wala yu gàtt loolu rek nga ci jàngee naka la ndax buñ xamulee naka la mën ngaa toog di defantu loo xam ne dëgg dëgg waxtu wa laaju ko ndax waxtu yi am na ci yoo xam ne taar yu gudd lañ ca laaj ndëm mokkal nga ko am ci yoo xam ne taar yu gàtt lañ laaj waaye lii daal xadis la bu jëlee ci Jaabir ibn Samurata te asxaabu sunna solo nañ ko jëlee nañ ba tey ci moom mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na jàng ci jullit tisbaar ci suratul layli wa layli sa yaxsha ci jullit tàkkusaan noonu saar woowu ba tey wala lu mel ni saar woowu jullit suba nag mu jàng saar wu gën a gudd wa layli sa yaxsha dana jàng saaru ko gën a gudd loolu Abu Daawud solo na ko ba tey jëlee nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne yonent daan na jàng ci jullit tisbaar sabi sma rabbikal aala ci jullit suba mu jàng saar wu gën a gudd woowu jullit suba nag lu tax it ñu tànn saar wu gën a gudd woowu ya tax bari na ndax lu tax moom duñ koy faral di waxee tax lii la yonent daan def daal lii la yonent daan def waaye boo seetee itam bari na bu ñu noddee noddu ga taxawal julli ga fekk am na ñuy nelaw jogaguñu wala am na ñuy jàpp pareguñu bu ñu gaawantoo moom imam bu gaawantoo ci julli ga jàng saar yu gàtt ya du ñàkk dina am ñoo xam ne dinañ ñëw fekk mu pare julli ga moo tax daan nañ tànn ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàng saar yu gudd lool ba léegi boo demee réewu Arabie Saoudite di nga fekk léeg-léeg jàkk joo xam ne mun nañ taxawal rakk bu njëkk ba nga yeewoo ci say nelaw jàpp dem ba ci jàkk ja fekk leen rukkoo aguñu danay am lool ba léegi kon lu ngeen ci déggee rek bu guddee daal baax na lool ci jullit suba dem mokkal nga lu gudd kon bunt bi jëm ci wàllu lu ñuy jàng ci waxtu yi gudd na de waaye déggee leen ci rek ku nekk la nga mokkal jàngal boo mënee lu gën a gudd ci waxtu yooyu ñu wax tànnal tànnal jàng ko ca lan lañ daan jàng nag ci jullit timis ak jullit gaye jullit timis jullit gaye jëlee nañ ci ibni abbas radiallahu anhuma mu ne suñuy wax umul fadli umul fadli yaayu borom gëneel li tur la lu baabatub ni xaalis la tudd doon jabaru abbas di mbokkum maymunatu mi nga xam ne kenn la woon ci soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëlee nañ ci moom mu ne dégg nañ ko muy jàng suratu mursalaati wal mursalaati orfan mu ne ki nga xam ne mooy ibnu abbas dégg na moom kii moom jigéen ji moo dégg ibnu abbas muy jàng loolu mu ne ko fàttalil nga ñu njàngum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàng fàttalil nga ñu njàngam yonent sallallahu alayhi wa sallam ci njàng bi nga jàng wii saar ñu déggee ci ne kon yonent daan na jàng saar bi rek mu ne ko innaha la axiru ma sami'tu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u biha fil maghrib mooy saar bi ma mujj a mujj a mujj a dégg yonent sallallahu alayhi wa sallam jullee ko timis loolu la tontu kon ba tey jëlee nañ ci Jubayr ibn Mut'im mu wax ne dégg na yonent sallallahu alayhi wa sallam jàng ba tey itam ci julli timis surati tóor wa tóor te loolu juróom yëpp soloo nañ ko ba tey ibnu mas'ud julli na fekk moo doon imam julli timis mu jàng qul wallahu ahadun loolu abu daawud solo na ko yonent ba tey sallallahu alayhi wa sallam jëlee nañ ci bara mu wax ne dégg na yonent sallallahu alayhi wa sallam jàng ci julli gaye wa tiini wa zeytoon mu tekkee nag ne mosuma dégg kenn neexee baat ba mel ni baatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi moo neex baat loolu la ci teg loolu hadis la boo xam ne juróomi solo na ko loolu Abu Dawud kon nag buñ dëngoo bi gudd na ñu xam naka la daan jullee ñu koy roy ca sew sewu julli yépp lii leen la ci am leen ak dégg alhamdulilah yéen yàlla may ak dégg te may ñu ñu bokk ca ñi nga xam ne dañuy taxawal julli ca waxtu ya ca anam ba ko yonente sallallahu alayhi wa sallam daan taxawale أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ñoo ngi ci buntab julli ba tey julli mooy imaadu diin moo tee diin buñ ne imaadu diin mu mel ni diina ab tekk la ku xam tekk mooy mbaar la wala nga ne ab néeg la jën ya ko téye buñ ne jën itam wala fa koy tuddee li ñu naan pied pilier yi ngeen xam muy yi taxaw téye kër gi wala dana koy tuddee jën day dem ca àll ba ut bant boo xam ne day mel ni gennu jën ñu teg ca ay bant mu téye lay mbaar ma wala lay néeg ba yonent nee na sallallahu alayhi wa sallam julli nag moom mooy jënu diina mooy amaadu diin nee na ku ko rafetal rafetal na diina ku ko sàgganal nag bàyyi na diina kon wax yi ñu war a wax lu jëm ci julli nu muy rafetee war naa bari waaye ñëpp war nañ ko yittewoo wax naa leen ne yàgg dégg yàgg fekkee dëgg la xam-xam la waaye nag déggee ci njàngaleem yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam yemul a déggee feneen gis ku xam di jëf dana wutee itam ak gis kuy jëf te xamul xam leen jëfee leen jubal leen ñu mën a royee ci yéen gënee lug roy googa ñoo ñuy roy ci yéen di yokk te nekkataal nekkaatal leen rek yéen itam kon nag jullee am solo yaatu lañ ca war a wax ñoo ngi ci ba tey kon tey jii di ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru ji ñoo ngi ci weeru gàmmu tey jii di àllarba ji moom la ñuy am fanweereelu dàq ci sunu téere taaj bunt bi ñuy jàng ba tey julli la waaye mooy alqiraatu fi subhi moo ci njëkk dafa am ay anawin unwaan kon ñu ngi jàng tey ci lu yonent daan jàng ci julli suba sallallahu alayhi wa sallam jëlee nañ ci abi barzata yal na yàlla may ku ngërmandeem mu ne yonent sallallahu alayhi wa sallam daan na jàng ci julli suba juróom benn fukki aaya ba am lu mat téeméeri aaya mooy jullit suba daal dana guddil dana guddal njàng ma ndax juróom benn fukki aaya saar wa ko def gudd la téeméeri aaya yi noonu mu ne jullit suba daal daan na jàng njàng mu gudd ba tolloog juróom benn fukk wala téeméer ci ay aaya te loolu Seyxaani Tirmidi ñoo ko solo jëlee nañ ba tey ci jaabir ibnu sumarata mu ne yàlla yàlla may ku ngërmandeem yonente sallallahu alayhi wa sallam daan na jàng ci julli fajar suratu xaaf wal quraanil majidi mu ne gannaaw loola nag jullim daan na gën a woyof maanaam saar yi mën na gën a gàtt muslim soloo ko ak tirmisi yu loolu yépp nag lu ngeen ciy déggee mooy waxuñ ne lii la yonent jàngoon kenn ku mu doon ci yéen lii rek la war a jàng bu ko jàngulee jullim baaxul waxuñ loolu waaye lu mel nii la naan jàng foo jàngee lu mel noonu rek jàng ci sunnam ko boo jàngee jëmmu loola baax na boo jàngee lu toll ak loola baax na waaye daal ci nii rek nga mën a xamee la nga war a jàng lu mu war a toll déggee leen ci loolu jëlee nañ ba tey ci Amr ibn Xuraysin yal na yàlla may ku ngërmandeem mu ne mu ngi mel ni maa ngi dégg